Sénégal la cohabitation a fait la législative 2017 j'avais fait le tenu le même discours ki nga xam ne bëgg lu discours Mais ko ne dul neex la mais sous région bi gis conflit yi ni mu nga histoire du Sénégal ci bopom ñun ñëpp nañu président Senghor ak président Mamadou Dia ñëpp jangat nañu président Abdoulaye le Premier ministre Idriss Pourtant, qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Imaginez, le bouffet qu'on a mon doole bobu ci jamono mon Légui tay imaginez nga wara jog jëm vers fo xamné on est à la veille d'une élection présidentielle capitale. Nga wara jog am un président bu fété après nous y dañuy une majorité bo xamanteni parlementaire bu fété Mais c'est la guerre. C'est le moment mala waaw lolo nous avons ko wax ndegam ay nit ñoo mëna di tal bi ci jamono bu ñu téewul ay institution yu toll non ñooñu nga sétane ñu lu gouvernement bi ci moment conflit bobu Sénégal Nous ko Mo waral même ñun bu dañu bëgg Macky Sall nañu Sénégal ba paré te nous Sénégal bobu mo laaj dal bokk na ci message le bu war a ci ku nek loolu lutax lutax mo important tayji man na am doyen yi comme dañ fi yagando mo am ci ño xam bokku ñu gis-gis wala dañ joté suñu waree juk dem ci élection ñom ñu jital seen joté bobu bani suñ ko fi tegee rek mom nañ ko nañ buñ fi tegee ngeet rek nañ nañ nañ nañ nañ yàq yëf mais mom yaqaluñ ko du mom mooy yaqulé mais Sénégal mooy yàqule nit am na droit ne bëgg naa nit amna droit ni je vais être élu mais li nga amul droit wax buñ ma falul kenn du fi falu wala buñ ma falu ma yak lepp loolu kenn amul droit bo loolu kenn amul droit bo je pense que donc il est important que kenn ku ci nekk bayyi xel loolu ñu nekk ensemble jéem set seet naka la def ba taxaw ci wetu Sénégal ba taxaw ci wetu président de la République taxaw ci wetu benn Bokk Yaakaar ak la grande majorité présidentielle pour seet maintenant li ñuy wut moom mu di ko wut su amee ñun suñu wàll nag mooy nan la ñuy ñagee loolu ba kenn du aakimoo loolu di ci def lu dëppoowul ak li ñu bëgg mooy fexe Sénégal tax loolu ku ne am na droit ci loolu